bismillahi rahmaani rahiim su jógee ndar moom mii ànd ak mbokkam mu ñuy wax may sa faal yal na ko yàlla yërëm jëm si ndakaaru jëm si ndakaaru suñu oto ci yoon wi bi ñu ñëwee ba ci yoon wi seen oto yàlla dimbale ñu ñu yem ci benn camion bu mag yàlla dimbale leen ñu yem ci camion bu mag mu fab du camion ba yeb leen. bi ñu ñëwee ba Tëngéej. bi ñu ñëwee ba Tëngéej. soo paasee fi nga xam ne fii mooy ko sukkural la. soo génnee Tëngéej jëm si mbaaw am na naar bu ñuy wax sukkural la muy liggéey affaire béton yi. soo paasee magasin am yooyu. virage boobu jëm mbaaw. am na yoonu fu mu lum kuc bala ngaa yegg si mbaaw. foofee takkusaan jote ñu fa. bañ tolloo foofee takkusaan jot suñu borom tabaraka wa taala yàlla mi nga xam ne mii moom moo kowete tëlewul dara dugal xasida bi ci sama xol ma tàmbali nee na ne toq xasida bi mu yar gent ci xolam soo demee ci virage boobule boo demee ci foofu yoon wi lum kéebala ngaa yegg si mbaaw daa fekk guy gu nekk sa ndeyjoor ci sa wetuk ndeyjoor boo jëm seen ndakaaru guye nga fa benn tableau foñ buñ fa guy ga am na tableau weñ buñ ca taf foofu la ko tàmbalee ci guy googee la ko tàmbalee ba mu ñëwee bi mu ñëwee ci dëkk bi fii ndakaaru sama soxna dafa daan toog bu mu yàgg mu ne mu loola jot ci ko yitteel ba soxnaam daf ko daan wax ne ko mbaadu la nga feebar bu guddee damay tëgg kayit tëgg bi ndax mu daan tëdd booba xasida bee ko yitteel ba da daan jeganoo kayit ak bindukaay. bay ab ya xasida bi mel ne ay gàtt yu jiital. nee na xasida bi yomb gim ko yomb way yi dañuy dàqe rek di jaar ci kanamam rek muy tëral ni mu ko neexee. su ko defee bu ne gëm-gëm rek way yi way yi da di yur yur yur yur mu commencé ne bëri rek di bind. Abdourahmane yàlla na na booba am na góor gum daan faral di àndal ñun ne ko Baye Abdourahmane Sow fenn mbabba ca ndar yàlla ko yàlla yërëm. mu nekk ca tëdd ca ndar géwant gis sëriñ bi. ma toog ci kanamu Seydi Aboubacar radiyallahu anhu. bi mu gisee sëriñ bi ci kanam Seydi Aboubacar la ko gis. mu toog. maa ngi amee kayit di ko jàng. mu gis sëriñ bi mi ngi amee kayit di jàng ci këram Seydi Aboubacar. waaye li ko ci jaaxal léeg-léeg mu dégg ci arab yi ak loo xam ne du arab. waaye ci géwante gi nag na sëriñ bi li muy nettali Seydi Aboubacar léeg-léeg mu wax baati arab léeg-léeg yu wax muy wolof. ba xasida ba àggee. moom nag bi mu nee Ndakaaru di kër kër yi ba xasida bi àgg. ma jóge fii dem Tiwaawan di ko yóbbu. mu daldi lem xasida bi nag di ko jébbali Seydi Abubakar ca Tiwaawan. kaana min adati su wàccee Tiwaawan. nee na moom bokkoon na ci lu mu baaxoo bu ne cëpp Tiwaawan jógee Ndakaaro wala Ndar. wala su ma bëggee génn. wala bu bëggee génn Tiwaawan jëm ci benn dëkk. su ma wàccee gaar ba bala maa dem fenn jaar ci sëñ ba. nee na bu wàccee gaar ba balaa dugg genn kër day dem ci Seydi Abubakar Si radiyallahu anhu. su ma di bëgg tukki nee na bu daan bëgg a tukki it ca moom lay mujjee mu ñaanal ma nee ca moom lay mujjee mu ñaanal ko mu jubal gaar ba ma wàcc ci oto ray rek ba nga xamee ni bii lem na xasida bi tukkee ndakaaru nag mu ne cëpp ci gaaru Tiwaawan fekk boobu ñu nga wàcc gàmmu nee na booba gàmmoo ngi jegeñ si muy bisub talaata suba teel bis boobale bisub talaata la teel la oto ray yegg Tiwaawan na ngi ànd ak ñoom Cheikh ak ñeneen. booba ànd naa mbooloo Baye Cheikh Ndiaye maa bee ya nga ca ak ñeneen. ba ñu wàccee. ba ñu demee Tiwaawoon ba wàcc nag. ñu ñëw ca kër ga. ñu daldi dem kër ga nag. ci kër Seydi Aboubacar. maanaam ci kër Seydi Aboubacar si. fi ñu ko waxee ni ñëw naa. nee na laata ñoo yëgal Seydi Aboubacar nii sëñ bi Seydi Abdou ñëw na. Abdourahmane Sow ne jëmee sama kër. Abdourahmane Sow it jóge ndar ne putt ci kanam sëñ bi. fekkee li may jàng. fekkee la mu géwantu woon mu gis sëriñ bi génn xasida bi di ko jàng ci kanam Sidi Aboubacar. loolu ko lool. nee na Sidi euh, Baye Abdourahmane Sow daal di jaaxle. xasida bi lii lay ko waral. xasida bi daal lii moo ko waral. waaye li ci ëpp ci. samay xasaay yëpp ci sëñ Babacar la ko def waaye nee na moom du boobu xasida rek bari na ay xasida yu mu defar yu ca ëpp si dee bu kër rek la cay tagg waaye bu mu ci ci wéradi la ma fekk waaye nee kat xasida bu mas di def ci si dee bu kër ci wéradi lay tëdd di ko def nee na nii daal la amee Seydi Seydi Mansour ne yal na la yàlla fay kon nag doyle wuñu waaye mën na kon nag doyle wuñu waaye nag ñu yeewi la rek. ci bis boobu nag. si mi nee na bis muy ci gàmmu ga. muy gàmmu Tiwaawan ñëw. sëriñ bi woolu ma. sëñ si woolu ko. ci la wax ci gaaru ndakaaru. la wax ca gaaru ndakaaru ni. inna rakibna qubayla subhi mislina inna rakibna qubayla subhi mislina من بعد ما كان من بعد ما كان تون الحديث لنا من بعد ما كان ما ما ما كاد ما كاد tuulul aadi tuulul aadi yusli nee na nun maag mbooloo mi man Abdou Aziz ak mbooloo mi nun day duggee na noon Ndakaaru suba teel ci saxaar gu ñuy wax misliin misliin otoraayo ko ëpp misilin sax li ci ëpp gouverneur ko daan tukkee xale yi xamuñu ko nee na moom nag ci la dugg mook ñi mu àndal wuti tiwaawoon te fekk na nag laata moo def loolu nee na boo lambee ba jëtam yi fu mu nekk rek xiif gëj gis sëñ Babacar a ngi ci wala namm ko yawma thulathaa'i maa sax bin xataarifatin nee na yow ma sulasaayi maa sax bin xataarifatin loola day bisub altine la xewoon bi nu duggee misilin muy bisub talaata ma ànd ak nag ay ay àndandoo yoo xam ne du ñu ay como de ay ngand lañu tadullu axlaaqahum fi liini misliina nee na ñooñee ma àndal li tax ma ne duñ como nee na da nga gis seen jikko ya ni misliin boobu nga xam ne boo ca masaan dugg raj-raj ja du la yëngal da ngay def dégg rek muy watu ilaa tiwaawiina daaril qutbi maljaina nee na ilaa tiwaawiina daaril qutbi maljaina nu mënul fu nu misliin bi jëmee xanaa tiwaawoon ma nga xam ne mooy këru kilifa ga mooy këru sang ba lil mawlidi al muxtaar سينا نينا للمولد النبوي المختار يا سينا مولن فاي ووتي داني ماغالي غودو غودي جودو يونت بوبو ني تودي ياسين لما وصلنا وجدنا الجار تملؤه احبابه كرما kullun yuwaasina sëñ bi nee na nag ba nga xamee ne muslim ba nee na rëng ca gaarub Tiwaawan fekk nañu sunu xarit yeeg sunu mbokk yi nu xiiboon yépp ñu ngi fees dell gaar bi nag di nu yàkkaw liku nag di nu teeru min naqli amtiatin liddaari qad yahilu kaannama rakibu liddaari maasina maasina mu ngoog yàgg na de ndax dañuy dem. nee na sëñ Moustapha nee na euh, sëñ euh, Mansour nee na maam ñu ngi sant di tey gërëm. nee na kontaan nañu lool. ñu koy seedeel ni képp ku bokk si famille si Hadj Malick teew nga si tànt bi. nee na ñu ngi lay boo ñu ngi lay nag ni képp koo xam ne famille nga bokk ci kër si Hadj Malick rek yaa ngi ci tànt bi. Samba Ahmed si ngi nii toog. nee na bàyyam Sidi Ahmed si Khalifa ngi nii toog. comme Pape Sëñ kooku moom du ngi fi. ne ko nag Ahmed si. nee na euh, magam Sidi Ahmed si lañ la tuddee waaye nag dana xuloo ak yow. léegi sama a ngi fi. nee si borom daara ji ñëpp a ngi fi. sama waa kër maam Habib si radiyallahu anhu fi. waa kër Pape Cheikh a ngi na waa kër Pape Cheikh Tidiane si Baktoum a ngi fi. waa kër Badiane Sofia ngi fi. nee na waa kër Badianam Sofia ngi fi. ah mi ngi toog. nee na seen doom mi Badiane Dout sàll maître Dout Sall mi ngi toog. nee na waa kër papaam Serigne Mbaye itam a ngi fi. waatam bi yëpp nee na moom daal man na la wax ni njabootu Seydi El Hadji Malick a ngi fi. waa kër fi. nee waa kër Baayam Abdoulaye Si Si Junior ñëpp teew nañu. ñuy ñaan yàlla. nee loolu tax na nag ñuy ñaan yàlla. événement bu mel nii. nee na xew-xew bu mel nii. dajale famille Seydi nga xam ne bu xewee day dajale njabootu maam Seydi Hadj Malick. événement boobu. nee na xew-xew boobu. di xew-xew bu tey xew-xewu bànneex rek. yàlla bu fi géej. waaye yàlla bu mu gëj a xew. ni ko bi ñu demee Louga. nee ñu ba yàlla dogalee ñu dem Louga. te mu daje fa ak sama papa Mansour. nee na te mu dajee fa ak baayam Mansour. kaddu gi nu mujj wax ci gàmmu gi. nee kàddu gi ñu mujj wax ci gàmmu gi. dafa am ku jóg nii. dafa am ku jóg nii. yéen ñaar seen toogaay bi. yéen ñaar day seen toogaay bi. yàlla na sax. yàlla na sax. mu am ñaari weer. mu am ñaari weer rek. ñu daje maag sëñ Mansour si Arafat. nee na mu dajee teeg sëñ Mansour sa bos ca Arafa. jabalu rahma. ca place boobee ñuy wax jabalu rahma. waaye moom